mbokk yi ba tey ñu ngi waat ci compétition bi noonu euh, lii di Diourbel am na deux Fatick am benn kon ñu ngi dellu si waat ci compétition bi euh, Diourbel moo moo ngemboo euh, ngembu Lagos bi te am ceinture bu rouge bi Fatick moo ngemboo ngembu lu bleu kon ñu ngi waat ci compétition ba tey dox ci diggante Diourbel ak Fatick ñu ngi noonu Diourbel ak Fatick ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu Fatick ak Diourbel ndeysaan ñu ngi noonu Diourbel ak Fatick actuellement Diourbel benn ndam la soxla kon mën naa ne Diourbel la ko dese mu dem final ay ay ay simili benn ndam bu amee ci compétition bi dem final moom Diourbel waaye actuellement nii dese na leen benn komba bu weesoo bii dina des ci diggante booy Faye moom mi nga xamante ni moo représenté jurbel dina laaleek ki nga xamante ni mooy général Malika moom mi nga xamante ni moo représenté Fatick kon mbokk yi compétition yi mu ngi noonu di dox ba tey ci diggante Fatick ak jurbel Dakar Thiès éliminé na ko kon Thiès daanaka mën naa ne mbokk yi dem na final final bi nag dimanche la suba compétition bi li am mooy par individuel la ñuy def compétition bi dem final ku dem final individuel dimanche incha allahu rabbi te la ñuy fas yéene yegg ci dañ dëpp gi muy final gi gis nga avertissement Diourbel avertissement Fatick ñu ngi noonu Diourbel moo leen féete càmmoñ ngemboo ceinture bu rouge Fatick moo leen féete ndijoor ngemboo ngemb lu ñu ngi noonu ci compétition bi ba tey Diourbel ak Fatick Diourbel ak Fatick ndaysaan ñu ngi noonu Diourbel ak Fatick ndeysaan ñu ngi noonu ba tey dara xewagul compétition bi dafay dafa metti actuellement fi toll nii Fatick bu amee beneen ndam mën na cee génn ci diggante Diourbel ordinateur ñàkk na ñàkk na Diourbel éliminé na Fatick Diourbel dem na final ndaysaan Diourbel daan na Fatick Diourbel éliminé na Fatick